nga ko jàngatee. discours bi ak gis naa gis naa ñu bëri di ko attaqué di kii bon euh, li mu wax. Mhm. Euh, d'après ce que je comprends. Mhm. dafa convoqué benn euh, situation. Mhm. mu ne situation bi amul pexe foog conseil constitutionnel interprété. am na li mu wax loolu droit la. droit la kom lan. comme par exemple buñ demee ba le 2 avril président mandat am jeex. moom d' après euh, ni ma liiree tweetam mhm. moom day bàyyi parce que nee na ma décision est ferme duma ma paie sur le alors bu ñu demee ba le 2 avril mandat am jeex na situation ban la ñu nekk pour mën a léegi trouver une solution ñetti kaa moom moo am pour ñu ne vacance de pouvoir. Mhm. ñetti cas euh, trent 39. Mhm. dafa ne bu dee euh, cas de décès la. bu dee cas d' empêchement empêche euh, euh, décès amul empêchement définitif mooy yaa ngi ci incapacité feebar nga nangam nangam euh, boobu mooy deuxième cas bi. Mhm. beneen bi mu ne ku démissionné. Mhm. foofu tamit foog ñu comprendre que ni moom bu yeggee ba le deux à minuit mandaawam jeex démissionné wul. Mhm. déedéet démissionné wul parce que démission mooy ku nekk ci mission. dé mission kon génn ci sa mission. moom après le 2 à minuit il n'est plus en mission et il le répète. Mhm. plusieurs fois d'ailleurs ma mission s'arrête le 2 avril. 2 donc kon il n'est plus en mission. on ne peut pas parler de démission. Mhm. kon ñetti cas yi andi vacances de pouvoir yëpp nekkuñ ci foofu te vacances de pouvoir moom mooy wax que président assemblée na ñëw. vacance de pouvoir mooy wax président assemblée na ñëw donc kon cas bi du cas ñuy woo président assemblée. Mhm. alors léegi euh, fan lañ mën a kii mandaawam jeex na amul successeur voilà ce qui est catastrophique te moom moo ñu teg ci situation boobu. Mhm. moom président Macky moo ñu teg ci situation boobu noonu. moo ñu teg ci situation boo xam ne mosul am ci àdduna maam xadi waxuma benn texte àdduna dans pratique. Ah amul mus nga gis ci àdduna président bu mandaawam jeex te amul successeur. Hmm. président bu mandaawam jeex te organisé wul élection mu jéem a puso bu mu réer. biñ ko koy jox moom président Wade mandat mu ngi doon jeex le 3 avril 2012 fexe na ba organiser le 27 février fexe na ba deuxième tour am na le 25 mars le 3 avril mu jox ko looloo tax ma ni c'est d'une gravité extrême boo xamante ne l'entière responsabilité revient au président Macky ci dëkk boo xamante ne cest à ni mu waxee moo tax foog ñu tontoo ko nii dafa ne. bëgguma sax mu fekk ma fi. Mhm. mel ni kuy jalax Sénégal noonu quoi di ko sànni dëkk boo xamante ne yow ba fépp foo mënti nekk Sénégal wàccoo na ak yow ci lépp ba ngay mhm. jàng c'est l'école publique sénégalaise. Mhm. ba nga amee xëy yaa ngi ci établissement public. nekk euh, agent au Petrosen chef de service Petrosen directeur ci Petrosen directeur général ci Petrosen ministre de l'hydraulique ministre des mines ministre des collectivités locales ministre de l'intérieur premier ministre président assemblée nationale président de la république du Sénégal dëkk boobu wàccoon naa ak yow ci yëpp ngay taxaw naan da nga leen di jàllaxee nii naan euh, bugguma mu fekk ma fi. Mm-hmm. lii leen la ji yow lii leen la réew mi ji. Mm-hmm. réew mi teraanga bu nekk jox na la ko. te loolu loolu yëpp station yi ma lay wax yëpp dañ lay jox oto jox la sécurité jox la pale jox la lépp ci wàccuwaay pour nga taxawu askan woowu noonu tey nga ne bëgguma sax élection fekkuma fi mel ni kuy sànni Sénégal noonu. Mhm. à un certain moment donné pléthore de candidats yi war na jaar nag bu ñuy validité candidats yi ñu defaale évaluation psychologique nag parce que lii garaaw na. Hmm. nekk situation boo xamante ni kenn xamul fu ñu jëm. ci loo xamante ne tellement facile à éviter. il suffisait juste rek nga déglu sénégalais yi. malgré état boo mënti yegg si ba yegg si fii nii yëpp lii yëpp 2021 ba léegi nu ngi koy wax lii lañ doon bañ. mais booba noonu gars yi fii nga bokk fële nga bokk Sénégal la ñu bokk. wax dëgg loolu la yàlla bëgg. te lii ñu la doon éviter yëpp boo taxawee ba tey ne nañ ko fàtte dinañ ñëwaat ci amnistie bi nañ ko fàtte. kon kay c'est regrettable. lu baax dinañ ko fàtte. Mm-hmm. du baax dinañ ne nañ ko fàtte déedéet. lu bon rek lañ mën a fàtte am na ñu koy tooñ sax ne ko ndax bëgg nañu fàtte BRT bi. Euh, justement parce que lu baax kenn du ko <laughs> fàtte. boo taxawee ne nañ ko fàtte rek xamal ne c'est regrettable. Hmm. c'est regrettable donc euh, yaa ngi regretté. baaxul parce que waroo ko woon def. voilà la situation bi nga xamante ne moom moo la ñu teg voilà li nga xamante ne moom la ko sénégalais ji. Hmm. donc il n'a pas le droit ci lii nii nga xamante ne tey ñu ngi ciy jëm non. Hmm. au pire des cas. au pire des cas xanaa mu yegg ba le premier démissionné ah là il est euh, boobu démission lay doon parce que il est en mission mais bu boobaa luy xew sur le plan bu boobaa itam est ce que du am impact ci candidat parce que dañu naan bu démissionné dañuy tëggaat bien sûr moo tax ma ne la Sidiki li mu wax droit la hmm. bu dee démissionné na président assemblée moom bu ñëwee lui il vient dans une procédure spéciale d'élection ñëwul ci procédure bii nii de ko commun comme ñu xam parce que moom lu loi daf ko tënk article 39 constitution moo koy wax naka la ñëwee mais buy ñëwee da koy obligé ne ko doo laal article 51. article 51. lu mooy nooy euh, premier ministre. Euh, limogé premier ministre. Mm-hmm. gouvernement ak yaa amoo boobu sañ-sañ. article 52 doo ko laal. article 52 mooy les pouvoirs exceptionnels yi nga xamante ne jox nañ ko président de la république en cas de crise profonde institutionnelle ba arrêter l'institution loolu mooy les euh, li ñu doon wax euh, fële muy euh, les pouvoirs exceptionnels du président mënu ko am article 86 mënu ko laal mënul laal article 87 mënul laal article 103 donc dañ ko tënk les affaires courantes pour nga organiser élection donc kon xam nga ne élection bi muy organiser ce n'est pas élection bi nekk ci régularité bi nekk ci calendrier électoral bi. Hmm. parce que calendrier électoral bi dañ ko biaisé par exemple président bi démissionné na avant mandat wu di jeex. Hmm. kon foofu mënatoo wax waxu calendrier électoral mënatoo wax continuer processus ba ñu atténuer boobu ñu on est dans une situation exceptionnelle on reprend tout à zéro tout. lépp la ñuy reprendre à de candidature yi parrainage bi lépp la reprendre à zéro hmm. parce que foofu on ne peut plus convoquer la théorie des droits acquis parce que droit yi ngay acquérir da nga ko acquérir woon ci beneen condition ci beneen contexte ci beneen cadre juridique alors que fii dañoo nekk ci beneen cadre juridique alors loolu moom moo tax na moom bu démissionné fii avant le deux mais bu weesoo le deux rek mënatuñu wax waxu démission donc foofu noonu la ñuy jéem a xool d' après li président wax ñu laaj euh, asa kii euh, conseil constitutionnel mu interprété mais il interprète quoi justement. lu muy interprété lan selon xam nga la interprété texte lay jox ne la mhm. mais fii amul texte. y' a pas un texte qui réglemente cette situation là. parce que nee naa la ñetti situation yi waral loolu noonu yëpp nekkuñu ci donc texte ban lay interprété on a convoqué l' article 36. Mhm. alinéa 2. Mhm. que le président reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur mais balaa ngaa wax successeur élection mooy am. maam da ngay rester ci plateau bi ba Isatine ñëw. Mhm. kon dañuy xam ne kon toutes les conditions sont réunies pour Isatine ñëw. Mhm. mais bu dee yow Isatine ma nga ca euh, xombol. est-ce que di bay. Mhm. ñu ne la tu restes en fonction jusqu'ici. il revient quand xamoo. mais ah. est-ce que du tontu yi tamit fi ñu naan euh, euh, ñett yooyu ñu ne décès démission ou d'empêchement mm. est-ce que empêchement boobu du ñëw. il est empêché par quoi. comme li nga wax noonu. ne ne ne par exemple nga empêchement ça suppose que. feebar nga am euh, gàllankoor ba yeggali woo sa mandat. voilà maintenant bu dee bu demee ba le deux ça da koo ñedd jeexal da ko jeexal. parce que empêchement tële empêchement mooy lan. mooy nga am tële yeggali sa mandat. bu dee dañoo am tële organiser élection yi kay. non du tolli <laughs> organisé. <laughs> non dañuy wax rek. cas par cas wala situation bu nekk. éventualité bu nekk lan la ñuy kii quoi. télé bi du organisation bi. Mm. télé wu président bi la la ñuy wax. waaw mais organisation élection yi mooy tax ñu def élection. élection yi mooy tax ñu nommé ah, ah, ah, président. ñu ñu ñu élire président. waaw léegi télé bi ñu lay wax. waaw ci article 39. mooy mm. télé moom. moom mm. moom à titre personnel. mu télé empêchement loolu la. mais télé pour organiser élection xam nga du moom mooy organiser élection. moom mooy fixer date élection mais du moom mooy organiser élection. Mm-hmm. donc kon fii du télé. parce que télé boobu empêché feebar na incapacité ses facultés mentales sont altérées il y a beaucoup de situations yooyu noonu mais ça touche moom à personnel moom personne am la ñuy wax waaw léegi parce que démission bi personne am la ñuy wax. Mm-hmm. Euh, décès bi personne am wax. Mm-hmm. donc kon empêchement bi da ngay dégg ne personne am la donc tey jii ni article 36 2 euh, bi mënul appliqué parce que day rester en fonction jusqu'à l'installation de d'un successeur loolu boo ko déggee rek mhm. ci disposition boobu noonu da ngay xam ne danoo nekk ci situation boo xam ne élection am na ba pare loi yi foog ñu leen di comprendre di leen catégoriser parfois am na loi yoo xamante ne mën nga koo xam loi bi na mais doo ko appliquer parce que dañ lay jox beneen possibilité loolu moom la ñuy wax loi supplétive mën nga supplier son application par exemple une loi qui parle de polygamie à quatre hmm. mais ça ne concerne pas te loi la mais moom op jëlul option wu suivre loi boobu dafa jël option wu je dis n'importe quoi je ne sais pas. Ah, dafa jël option monogami de. <laughs> monogami na leer de sama baat ca kaw. Ah. polygami laa signé bu dee laa <laughs> signé wóor bu jëlee option wu monogami loi yi concerné la yëpp concerné wu la. donc kon loolu la ñuy wax loi supplétive. waaw am na loi d'ordre public. Mhm. yoo xamante ne da nga koy appliquer ci anam bu ne. am na loi yoo xamante ne c'est assujetti à des condition comme par exemple euh, article 36 bii nii c'est assujetti a une condition que élection am. ok d'accord nag bu dee waxee sama xalaat rek nag parce que fi mu toll nii moom xel bu sell moom moo des ñu utiliser texte amul. Hmm. man dama gëm ni na déclencher processus bi ñu bàyyi ko mu yeggali ba processus bi jeex loolu c'est le moins normal. Hmm. mu déclencher procesus bi ñu bàyyi ko mu yeggali ba processus bi yëpp jeex. ok sinon sinon force organisée mooy ñëw. lan ah Euh, force force la. organisée. force organisée. ñett wala ñaar la. Euh, président ah. assemblée nationale. te kooku buy organiser élection ci biir assemblée nationale. Mm-hmm. foog takk der yi dugg. Mm. kon moom buy organiser élection yi ci réew mi ñan ñoo war a dugg. ñan élection assemblée nationale c'est pas c'est pas difficile. Mm-hmm. Euh, ils sont cent et quelques il faut que takk der yi dugg pour jàppale ko kooku nga war ko jox élection wu réew. ma jàpp naa ne Amadou Mame Diop nañ ko euh, tegee na la beneen bi mooy moom mu continuer. lu tax ñu koy tegee ne la. non nee la am na difficulté pour organiser élection assemblée. ah bu ko jox élection wu réew. non man sama sama sama sama. Euh, <laughs> élection la léegi nag force organiser. Uh-huh. Ah. dama koy wax et ce n'est pas. déedéet jarul bàyyil bàyyil ma rendre le service bul ko wax man je te rends. non je te dis bu bu euh. non doucement li ma koy wax bëri na de. et jëm defal ah, ah. nag. bàyyil ma rendre le service rek man bul ko wax. Euh, Jenny Rawlings. Euh, force organisée la coup d'état la def il n'a pas servi la démocratie ghanéenne Thomas Sankara capitaine Sankara que tout le monde respecte coup d'état la def il n'a pas rendu service au Burkinabé attention un coup d'état n'est pas toujours. conforme ak li ñuy gis parfois mais attends bu ñu la falee à quatre-vingt-dix pour cent tu es légitime sur le plan populaire nga ñëw bëgg a jaay sa askan dañuy toog di la seetaan parfois force organisée day baax. ci réew mais est-ce que c'est le cas parfois non non non je ne dis. Ah, man jàpp naa ne Sénégal coup ah, d'état mënu fee am. Ah, mais parfois aussi force organisée day baax ci réew. mais waxuma dans ce cas-là. Mm-hmm. rien ne le justifie. au Sénégal rien ne le justifie. Mm. mais parfois laa la wax. parfois mm. dans certaines conditions. Euh, waaw man de man li ma li ma li ma li ma jàpp mooy. Mm-hmm. nekkuñ ci cas de figure boo xamante ne le 2 avril président Macky Sall bu demee président assemblée nationale moo ko mën a remplacer. man jàppuma loolu. parce que loi bi lan la wax bu président bu fekkente ne dafa démissionné. Mm-hmm. Macky Sall ko bu toogee ba le 2 maanaam dafa toog ba góoram jeex. te moom nee euh, lan la wax démission. wala décès wala tële. tële man ni ma gisee tële maanaam nga am gàllankoor ba yeggaliwoo sa mandat ba mu jeex. mais à partir du 2 foofu Macky yeggal na maanaam ñedd na ba mu set. donc trois mm-hmm. figure yii yëpp. trois cas de figure yëpp taxawul man côté boobu li ma ci jàpp mooy te wax dëgg yàlla ma waxtaan naa ceeg ñoo xamante seen xam-xam màcc na ay euh, ci wàllub yoon mhm. waxtaan naa ceeg ay théoricien waxtaan na ci ay praticien ñoom ñëpp li ñu bokk dëppoo d'accord ci mooy nii nii nii nii nii cas bi présenté wu ni amul loi bu ko leeral Sénégal maanaam amul loi buy leeral ni le deux Macky Sall bés bu demee diw moo koy remplacer nii la war demee loi boobu amu fi mhm. amul Sénégal parce que cooli cooli yëpp li indi cooli yëpp mooy loolu hein mhm. li indi cooli yëpp mooy vide juridique boobu nga xam ne am na si amul loi boo xam ne moo réglé mbir mi léegi nag lan moo ñu ci mën a génne interprétation mm-hmm. c'est comme oustaz yi parfois li ñuy wax rek da nga benn masala bu posé en religion mm-hmm. boo demee ci alxuraan gisoo fa aaya bu ci wax nga dem ci sunna gisoo xadis bu ci wax mm-hmm. dañuy def lu ñu tuddee ijma maanaam dëppoo borom xam-xam yi donc fi ñu nii loolu interprétation yi mu ñu ci mën a génnee parce que loi doo dem du constitution du code électoral du beneen loi boo xam ne da lay indil cas de figure bii mm-hmm. bii ñu nekk nii parce que du démission du décès du empêchement ñett yëpp du ci benn parce que empêchement mooy nga tële nga am gàllankoor ba mënoo yeggali sa mandat mm-hmm. te fii du à partir du 2 avril du gàllankoor donc nguur gi dafa dafa jeex mm-hmm. donc interprétation moo ñu ci mën a génnee te interprétation bi kan moo ko war a def du n'importe qui du man du yow mooy kuréel bi nga xam ne moom lañ fi teg pour pour pour wàll bi. Mhm. beneen bi ci topp mooy wax dëgg yàlla man euh, bokk naa ci ñi nga xamante ni président Macky Sall. Hmm. man dama koy ñaan le 2 avril. j'espère que man j'espère que pour la stabilité du pays le conseil constitutionnel dina décider ni na toog ba organiser élection yi ba prêter serment ba successeur am prêter serment mu jox ko lenge yi soog a dem j'espère que conseil constitutionnel dina décider lu pour la stabilité du pays. Hmm. bis bu ñu décidé leneen. Hmm. stabilité bi dina compromettre. comment ça moo tax man wax dëgg yàlla président Macky Sall man dama koy ñaan. naka lay foofu lay ñëw. Aïcha Macky Sall man ñaanu may ñaanu ma ko. mu dem au delà du 2 avril dama koy ñaan mu toog organiser élection yi ba successeur am ñëw te loolu conseil constitutionnel moo ko ci mën a joxoñ hmm. loolu bu ñu ko defal. la stabilité du pays sera fortement fortement compromise loolu moom loolu moom lu leer laa leen wax xam nga man nag suñu borom yàlla dogal na ne man lu ma leen mës a wax gis ngeen ko kenn mësuma vaar te combat bu ma porté gagné naa ko. Hmm. yaa loolu paa. man dama ne. dama koy rafetlu dama ne lu ma leen mës a wax teg ngeen ci seen bët. Hmm. kenn mësuma vaar ci kattanu yàlla yàlla dimbalee na ma ko. ten lu ma combat bu ma porté gagné ko. Ah, fii ba ma fi toogee fii ay jamono ne leen dégg loolu ma expliqué rek toogoon naa fii ay jamono ne leen gisuma benn ban yoon la justice mën a jaar ba condamné Ousmane Sonko pour viol. waaw qu'est-ce qui ko. Mm. dossier Imam Ndaw c'était la leen li ñu koy toppee nii yëpp ay caaxaan la terrorisme amu fi. mbir mi nan la mujjee seetaluñ ko pour terrorisme dossier Thione Seck la même chose am na sox ñu ma doon woon naa ma yow Thione ñaata la la fay. yaay avocat Thione Seck qu'est-ce setalu ko voilà noonu laa leen di waxee ni le 2 avril Macky Sall bés bu wàccee bi bu réew bi hmm. réew mi dina pëccëxoo dina jaxasoo moo tax man li ma koy ñaan mooy président Macky Sall bu mu dem na toog ba successeur am ñëw te loolu nag ki ko ci mën a jàppale mooy conseil constitutionnel moo tax ma ni leen j'espère que j'espère que le conseil constitutionnel dina ko ni na toog ba organiser élection yi ba organiser élection yi succès ñu désigner successeur am mu prêter serment daal di koy jox lenge yi soog a dem man sama demande bien moom conseil constitutionnel kan la war a désigner pour mu assurer transition bi. Hmm. parce que si on parle droit loo laay wax de. bu ñu di bu ñu ko yemalee ci wàllum droit. Hmm. le président de l' assemblée nationale ne peut pas assurer la transition. parce que trois cas de figure nekkuñ ci benn wax naa ko léegi. Hmm. donc kan la ñuy désigner pour mu assurer la transition. y' a un vide juridique il faut que ñu nangu ko ni lu suñu loi ci. donc li ci mën a génne mooy interprétation maintenant léegi nag solution ba conseil constitutionnel di teg dafa war doon solution boo xam ne day assurer la stabilité du pays maanaam jàmmi réew mi loolu mooy li nga xam ne moom moo am maintenant ñenn ñi nga xamante ne ñooy ajouté wu de part et d'autre ñoom aussi nañu xool intérêt réew mi parce que d'abord ñii naan ay élection avant le 2 élection avant le 2 ñooñu moom nañu noppalu élection mënu fi am avant le président de la République dafa war a jël décret bi convoqué le corps électoral ak diggante décret boobu noonu ak élection yi dafa am nombre de jours bu fi war a bu fi a bu bu war a durer fii nii. Mhm. ak campagne électorale au cas où deux am fi. Mhm. élection mën le deux avant le deux mënta nekk ñooñu nañ noppal seen bopp. ensuite ensuite parmi ñiy soutenir la suppléance la thèse de la suppléance du président de l' nationale. mais Pape Moussa rappelé na leen ko léegi. Hmm. pourtant ñii naan ci ci ci ci peut-être comprendre ñu ñii xeex naan ay non élection élection élection na dem na dem président na jël am na ñoo xam ne xamuñ sax pour ñoom bu président toogaatee dañuy maintenir les 19 non dañuy reprendre affaire yi processus bu bees mooy am. est-ce que ñun loolu mais am na est-ce que benn nuance mooy bu kañ lañ doon reprendre mooy bu président bi démissionné woon wala ci trois cas yooyu euh, mu daal di dem amadu maam Diop